ñi mu fi bàyyi kenn mënut a xayma seen mbir ndax defin wi mbooloo fab seen dund gépp ko seen ñoom xam nañu maam Cheikh bu baax doole nañ ko sëkk biir bi ci tey ëllëg loolu ñoom moo tax ñu fab seen dund gépp jaayat ko ko te bisiwuñ ca dara bi maam Cheikh fekkee ka mu doon liggéeyal bàyyi leen fi lu yéeme la ndax na ma ko fi bàyyee woon rek noonu lañ ko fabe ci biir activité loolu nag la muy tekki dafa jiitu woon inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna bon walla jeex bon lii maam Cheikh moo firi loola moo ko dégg moo ko firi moo ko jëf moo ko jàngale bay ko bàyyi ko fi ñu nekk ci ba bis pénc te yokk rek waaye wàññi kon loolu noonu rek la demee maam Seex ànd na ak yu bari buur ci suñu borom waaye fii gim fii laay jot rek jàngale ko bàyyi ko fi ñu di ko jëfe loolu rek doy